gërëm leen sant leen ci ànd beeg télévision Futur Média ñu yegg si ci soir d'info nuñ koy defee bu heure bi jotee Euh, tey nag euh, ci deuxième partie bi gannaaw xibaaru vingt yi dinañ dalal euh, professeur Ibrahima Diaw moom sociologue la di consultant expert en protection sociale ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ni moo di Covid bi communication autorité yi ak tamit leçon yi nga xamante ni war nañ ko tiire ci pandémie bi moo xam première vague bi la wala deuxième vague bi ba noonu ñuy dugg ci troisième vague bi donc yooyu yëpp danañ ko ci waxtaan ak professeur Ibrahima jaw daañu wax it mesures yi nga xamante ni war nañ ko jël pour. ko ñaanuñ ko yàlla mais bu lu ne mel amatee ñu xam ni ñuy def léegi léegi nag ci première partie bi ñu dalal suñu gan gu njëkk di euh, Babacar Ba euh, sëñ bi ba ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Barthélémy di la sant ci invitation bi. Mm-hmm. di nuyu également téléspectateurs yi nga xam ni ñoo ngi teelu di ñaan rek lépp loo xam ni wax nañ ko fii mu nekk njëriñu askan bi. ok yow yaay président forum euh, du justiciable li waral seen ñu invité la tey mooy mbirum Hissène Habré. Euh, gis nañu ne yenn ñeenti organisation défense des droits de l'homme mhm. muy yéen waa forum du justiciable Africa Jom Center mhm. euh, ak waa RADDHO tout à da ngeen def benn communiqué gannaaw saisine boo xamante ne tukkee na mhm. ci i seen Habré di Fatima Raymond Habré ne daa bëgg jëkkëram bi nekk kaso tey ñu feexal ko ba euh, Covid bi jàll yéen ngeen appuyer loolu ne su ngeen sañoon loolu am ci lan ngeen ko teg waaw comme ni nga ko waxee euh, je pense que ni bu ñu fàttalikoo war na am léegi ay deux semaines. Mhm. ki nga xam ne tey moom mooy famille Hissène Habré dañu saisiroon euh, les organisations de défense des droits de mhm. lu ci mel ni euh, Afrikajom Center bu Alioune jiite. Mhm. RADDHO bu ñas ji. Sadikh Niass jiite. Euh, Ligue sénégalaise des droits de l'homme comité sénégalais des droits de l'homme mais également euh, ak Amnesty International ba ci forum du justiciable alors bi ñu saisiré dañu doon alerter sur l' de santé de Hissène Habré parce que son état de santé est en de se dégrader te loolu je pense que ñi nga xam ne tey ñoo ngi suivre actualité bi yàgg nañ dégg ñenn ci organisation de défense des droits de l'homme yi di euh, alerter état du Sénégal ci état de santé bi nga xam ne moom la Hissène Habré yoon mhm. alors bi ñu jotee communiqué bi ñun suñu biir dañ ko jàngat te wax dëgg yàlla amuñu woon loo xam ne sax bett nañu ci communiqué bi parce que comme comme je l'ai dit man mi di wax ak yow am naa chance su dem seeti seen abré biir biir euh, biir kaso. Mhm. donc kon état de santé man xam naa ci dara. alors bi ñu gisee communiqué bi ñun ñu ni il faudrait que ñu réagir parce que nit ki également bu ñu la condamné. Mhm. wala ñu teg la loxo nga nekk biir kaso. dangay continuer di garde li ñuy wax say droit parce que mhm. benn ax ak yelleef lañ lay xañ mooy mënatoo dem mënatoo dikk. mais le droit à la santé. le droit à la vie da koy continuer di ko yor. alors loolu bi mu amee mais ci loolu yéen. da ngeen am kayit buy diagnostic buy prouvé waa waaw ci loolu euh, abri santé effectivement foofu foofu laa jëm ci loolu bi mu amee mu am ñetti organisation de défense des droits de l'homme mhm. yi nga xam ni Africa Jom Center bi Alioune Tine jiite. ak RADDHO bi Niass jiite mais également RADDHO aussi muy profité di féliciter euh, Senghane Senghor moom pratiquement euh, c' est quelqu'un qui abat un travail extraordinaire au niveau de la RADDHO parce que communiqué bi moom moo def draft bi. Mhm. alors loolu bi mu amee ci lañ jug maintenant euh, ñun. ku xam les organisations de défense des droits de l'homme yi nekk Sénégal. Mhm. je pense que ni ñëpp xam nañ que nii ci lu wér ci la ñu sukkandiku. Mhm. pour ñu jug wax ci mbir mi c'est parce que am nañ ay liy firndeel effectivement que état de santé Hissène Habré dafa dafa dafa dafa jéggi dayoo donc je pense que ni tey bu ñu wax ku mel ni Alioune Tine ngay wax ku mel ni Niass Rado mënuñu jug rek ne nañu féexal ki nga xam te mooy Hissène Habré. amuñu mais problème bi problème bi mooy problème bi mooy Hissène Habré n'est pas le seul. Euh, waaw détenu malade. waaw léegi ma ni ma léegi euh, euh, Bart. Mhm. yow boo bu fekkente ni yaa ngi suivre les différentes les différents communiqués yi nga xam ni. les organisations de défense des droits de l'homme ñu ngi koy génnee. war nga xam ni kon yàgg nañu jug di taxaw. que muy Hissène Habré que muy ñeneen ak ñeneen. bu fekkente ni dañ leen teg loxo seen état de santé ni plus compatible avec la détention carcérale. yàgg nga gis organisation de défense des droits de di ci kaas. comme combien de fois ay hommes politiques fii yu nekk Sénégal yoo xam c'est des leaders politiques. bu ñu leen tegee loxo. en plus souvent xaram li may wax dafa am solo. parce que selon communiqué bi yéen euh, defu leen euh, defu leen focus ci santé bi mais plutôt dangeen ngeen évoqué euh, Covid bi. waaw moom laa expliqué maa ngi ñëw parce que mani boo gisee tey parce que le plus souvent sax li ñuy reproché mooy pourquoi ñu ñu focaliser wu ci Hissène Habré ma ni bu ngeen fàttalikoo ci ay jamono am na fi ay homme politique yu bari yoo xam ni bu leen yoon di topp. Mhm. bu ñu ba ñu def mandat de dépôt yóbbu leen kaso le plus souvent pavillon spécial la ñu mujjee parce que seen état de santé du compatible ak détention carcérale bi. Mhm. donc foofu yàgg nañu jug di ŋàññ. ne ñooñu dañ leen féexal ñu faju parce que droit à la vie et droit à la santé dafa nekk loo xam ni dafa fondamental kenn mënu ko xaj nit déjà pour le cas du Hissène Habré Bart Hissène Habré làkk na quatre-vingt am na quatre vingt ans làkk cest à mag la xam nga mag aussi foofu je pense que ni jarul sax ñu koy vérifier boo demee ba nekk mag justice justice mag ak ndaw waaw non effectivement parce que parce que gis nga sax parce que dama ni li ma la bëgg expliquer mooy boo demee ba làkk yenn at yi feebar daf lay yomb te gis nga Bart Barthélemy ci yenn dëkk yi développé dans les grandes démocraties jurisprudence dafa prouver dafa wane que ni nit bu dee da nga âgé entre soixante dix jëm quatre vingt gis nga même bu ñu la condamné dañ lay dispenser à ce que nga tëdd peine bi soit ñu def la résidence euh, ñu assigné la à une résidence surveillée parce que yoon moo nanguwul mag bu demee ba 70. jëm 80 ça dépend ça te la ñuy toppee nit. waaw non ak ak ak ak lu mu non après la ñu koy toppee. waaw mani dañ ko jugé condamné. non xam nga d'ailleurs les associations l'association euh, bi bi dajale les victimes wax nañu ko. waaw xam nga foofu foofu dafa foofu dafa am ba pare fay lañ luñ ko. foofu waa waaw mani foofu dafa am amalgame. parce que dafa baax aussi ñi ngi seetaan ñu comprendre ça dafa am ñaari procédure yoo xam ne bokkul gis nga lu jëm ci indemnisation bi ak li jëm ci condamnation bi c'est deux procédures différentes il y a eu des après dafa am loo xam moom la ñu ko doon toppee victime yi jug porté plainte ñoom bi ñu porté plainte ñu àttee devant les chambres africaines extraordinaires te même sax procès bi xëy na tey loolu du mbébét bi mais gis nañ ci ay manquements yu bari. mais malgré ça a accepté la décision alors victime li ñu bëggoon mooy ñu condamné ki nga xam tey mooy Hissène Habré condamnation bi am na alors condamnation bi am na moo ngi purgé penam maintenant li jëm ci indemnisation bi te foofu aussi ñun boo xoolee ci communiqué bi mhm. nee nañ effectivement Union africaine mi jëloon engagement mhm. ne victimes yi nga xam ne tey ñoom ñoo doon topp Hissène Habré mhm. nañ leen dédommagé donc loolu nekkul dafa tegu ci ndoddu Hissène Habré encore une fois de plus il faut que ça soit très clair Euh, euh, euh, indemnisation boobu. Mhm. les chambres africaines prononcées xam nga ñan ñoo ko war a joxe. Mhm. ñi nga xam tey ñoo jëloon engagement. Mhm. ne dañuy tenir procès parce que boo xoolee. dinañ dellu ci wàllu ci indemnisation mais nañu wax ci seen mébét mooy ñu. waaw c'est-à-dire bar bar sous résidence surveillée may ma tuuti rek. wa ila moom daal na génn prison. résidence surveillée yoo xaw yéen a xam. nu ngeen ko mais daal na génn prison est-ce que. est-ce que est-ce que euh, monsieur Ba seen Habré moo gën yeneen détenus yi nga xam ne moom dañ ko jugé pas condamné waaw am na ñoo xamante ni. ñu ngi ci euh, euh, garde à vue wala boog ñu ngi ci détention provisoire àtte guñ leen jugé guñ leen ba léegi ñu ngi leen di tëj xam nga xam nga boo waxee te moom son sort a été scellé parce que jugé nañ ko ba condamné xam nga kaawu Hissène Habré mu siiw mhm. mais Bart moo tax ma ni la encore une fois de plus mhm. ku xam Afrikajom Center Alioune Tine mhm. ku ko xam xam nga ni nekkul ci ay parparloo ku xam rado ni mu organisation bu sérieuse ku leen xam xam ne nekk ñu si ay parparloo de même que forum du justiciable bu ngeen gis nga pandémie bi mu commencé la ñu wax ci détenus yi on a sorti plusieurs communiqués pour alerter sur l' état de santé des détenus sénégalais yi nga xam ñoo ngi ci biir kaso yi wax nañ ko ni nañu jël ay mesures dem nañ sax ba yenn organisation yi demandé nañ à ce que vaccin bu ñuy def nañ ko élargir bépp détenu que ce soit Hissène Habré ak ku mënti doon bu fekkente ni sa wérgu yaram mayitu la ngay nekk biir prison ñun wax nañ ko ni nañ la génne donc loolu Hissène Habré kay nañ ko jox nañ ko vacciné bu fekkee ne vacciné wu nañ ko vacciné Bart moom laa lay jël ay mesures euh, xaar ma ba non xaar ma la rek Bart première vague bi bi mu ñëwee mhm. Hissène Habré dañ ko mayoon permission mu génn dem këram 60 jours xam nga lu tax parce que looloo tax ngeen euh, au parce que au delà sax parce que gis nga au delà pandémie bi li ma la wax nii man dama ci xam dara au delà de la pandémie l'état de santé de Hissène Habré indépendamment de cette pandémie laa lay wax ni la de n'est plus compatible avec la détention carcérale mais est-ce que dans les prisons aussi il n'y a pas d'autres détenus beaucoup plus malades que Hissène Habré qui toog di purger seen peine waaw xam nga en fait tu poses une question mhm. est-ce que amul man mhm. boo xam ni feebar na te waxuñu si feebar bu gën a métti feebaru Hissène Habré ça n'existe pas te bis bu ñu ko xamee. parce que ñun aussi duñu ay on on ne devine pas. Hissène Habré souffre de quoi. il souffre de plusieurs choses déjà fan yee ay jamono déggoon nga fi daanu woon na fi ba am entorse ba pare mag am ay maladies chroniques yoo xam ne dafa nekk ci moom te bilan de santé boobu je vous invite ngeen ngeen invité seen famille ñoom bu ñu ñëwee dinañ leen indil. ay preuves yu wane que ni Hissène Habré il est il est il est presque mourant te je vous dis Bart gis te foofu damay interpeller le DAP. Mhm. Euh, Bokandé. Mhm. mu nekk un homme très responsable. le DAP nekk le directeur de l' administration pénitentiaire le directeur de l' administration pénitentiaire monsieur Bokandé. Mhm. dañ koy alerter di ko interpeller pour xamal ni ko bu ñu jëlul ay mesures. ci kaawu Hissène Habré Hissène Habré va mourir en prison ba pare xam lan moo gën a metti lan moo gën a ñaaw nag Sénégal ñu dem ba tey Hissène Habré bi nga xam ne dañu ko dénkoon pour que ñu atte ko état du Sénégal li mu waroon def def na ko jugé nañ ko atte nañ ko bu ñu ko bàyyee ci kaso bi ba mu dee fa loolu je pense que ni gàcce Sénégal la ba pare waruñu nangu également parce que bu ñu xoolee gis nga mbirum Hissène Habré mhm. l' état du Sénégal gàcce ngalama li mu waroon def yëpp def na ko organiser procès bi dans des conditions vraiment ça va quoi. Mhm. mais xam nga la mooy problème bi. Mhm. dafa am une personne bu ñuy wax Reed Brody. moom moo jiite Human Rights Watch. moom moo nekk xaw ma Londres la nekk xaw ma fa la nekk. di tirer ay ficelles cest à dañu bëgg a jël Hissène Habré def ko benn moyen de pression pour que ñoom ñu mën a jot seen indemnisation pour vous dire que ne ñun ñun dañu tëddee njaaxaanaay même si suñu communiqué boobu ñoo ngi interpellé l'Union africaine pour demander leen à ce ñi nga xam ne tey ñooy victimes yi ñoom nañ leen indemniser mais Reed Brody. mais indemnisation indemnisation bi lañ moo koy bloqué. pourquoi mu mel ni mu ne nii. Euh, pourquoi mu a du moom mooy indemniser encore une fois de plus xam nga ñoom ñoo jël engagement. Mhm. Union africaine maanaam réew ñoom réew yi d'accord ni nañ ko àtte. Mhm. ci statut yi dañ ni. Mhm. nañ ko àtte après ñoom dinañ jël engagement pour indemnité ñi pour indemniser nit ñi usine après du moom mooy indemniser encore une fois de plus. c'est l'Union africaine usine du moom mooy indemniser du moom mooy bon effectivement parce que Union africaine ñoo jëloon engagement boobu maintenant loolu muy firndeel que ni effectivement Union africaine lenn moo leen soxaloon. ñi nga xam ne tey ñoom Read Produit Human Rights Watch même yenn organisé yenn ONG leen soxaloon mooy no procès bi am. ñu àtte Hissène Habré tëj ko. parce que bu doon indemniser ndàmp victime yi daf leen soxal kon je pense que ni keroog bi ñu condamné bi ñu condamné Hissène Habré. Mhm. kon Barth ba moment bi may wax ak yow nii waroon nañu mën a jël victime yooyu ñu indemniser leen te victime yi tey ñu si bëri sax génn nañ àdduna donc ñoom en réalité li leen soxloon. mooy am nañu njaboot. am nañu njaboot ba tey d'accord naa. Mhm. man amuñu problème ak question indemnisation bi. Mhm. mais xam nga ban problème lañu am en tant que organisation de défense des droits de l'homme mhm. muy RADDHO di am euh, di euh, euh, di Afrikajom Center problème bi ñu am mooy on est en train de voir un homme qui est qui vraiment malade. te droit moo ñu jox moo jox ak ak yelleef moo ko jox bépp détenu mm-hmm. que bu sa état de santé comme li may wax ni nag c'est valable pour Hissène Habré c'est valable pour Massamba c'est valable pour ma Demba képp ku nekk prison sa état de santé dematul ba compatible avec la détention carcérale li ñu war a def mooy soit ñu mettre la à une résidence surveillée mm-hmm. parce que loolu mooy li jaar pour que nga mën a faju wala boog ñu jël benn grâce pour des dañ ko mayoon ci première vague bi rek moo tax ngeen mais comme vague yi ñëw na xaw a tar nii gis nga boo xoolee moo tax ma ni la avant ñuy wax pandémie bi yàgg nañu wax boo duggee ci net bi nga tàppe def santé de Hissène Habré ci vas plusieurs communiqués yoo xam dañ ko def avant pandémie bi di ñëw donc pandémie bi mooy lu mujj te yow mais logique pour logique Hissène Habré bu fekkente ne dañ ko may pression dañ ko may permission mu génn ci bi mais troisième vague bi c'est encore beaucoup plus dangereux variant delta li muy rey première vague bi reyu ko donc nit ki bu ko mënee may permission première vague bi mu génn mais deuxième troisième vague bi nga xam ne delta bi moo gën a soxor. da ngeen ko bëgg a def yoonu tool. mais en mais logique pour logique maintenant ñun au delà de ça au li ñu bëgg mooy. Mhm. le président de la république moom la constitution bi jox à travers l'article le droit de grâce dañ koy demander à ce que Hissène Habré. na ko accordé li ñuy wax une euh, leen di def. victime yi nañ parce que parce que xam la ma am solo. Mhm. c'était la condamnation victime benn satisfaction lañu amoon. mooy que ni. xaaral ñoom nee nañu li ñu bëgg mooy que Hissène Habré reste en prison et qu'il purge ouais, sa peine. léegi loo mais c'est pas c'est de décider xam nga nag. Mhm. yoon boo déggee man la mais lan moo tax tey ñu accordé le droit de grâce. Ah, li ñu bëgg la ñuy wax. waaw am na ci droit ñu bëgg la ñuy wax léegi Barthélémy ma ni mhm. de grâce. bu ñu demee ba créer ko. ba jox ko le président accorder le pardon. loolu loolu c'est un principe bu ñu demee ba créé ko ba accordé ko ça veut dire que ni kon nit ki même bu ñu ko condamné. mën na nekk xaaral mais est ce que dans ce contexte là Macky Sall na accorder le pardon à Hissène Habré ba pare woon ginnaaw ces 3000 et quelques victimes. moo tax boo xoolee lan la ñu wax ci communiqué bi nañu accorder grace wala bokk nañu féexal Hissène Habré mais également ñu ni victimes yooyu noonu mais Union africaine engagement bi mu jëloon na ko respecté nañu dàmp les victimes donc kay Barth ñun am ñu leen lu ñuy reproché bu fekkoon ne mbir mi dañ ci tëddee su bu fekkoon ne suñu communiqué bi dañu limité tout simplement daan ni Hissène Habré nañ ko féexal mu dem fajo yi ñu croiser les bras sur les victimes mais même ci communiqué bi nee nañ victimes yi nga xam ne tey ñoom la les chambres africaines accordel benn benn indemnisation mais ñooñu dañ leen indemniser Barth loolu mooy wax ji mais sinon bu ñu ko deful encore une fois de plus damay interpeller le ap Bokandé encore une fois de plus dégg nañ administration pénitentiaire dégg nañ lu ñu wax. nee nañu euh, avec euh, disposition yëpp yu war et la preuve ils ont suspendu tout ce qui est yooyu. ñu leen ñu leen ciy parce que loolu lu am solo la parce que wax naa la ñun ñun on travaille sur la question des prisons. Mhm. donc bi pandémie bi amee gis nañ jéego yi nga xam tey l'administration pénitentiaire def na ko te ça on félicite. léegi nag mesure yi ñu leen. non mesure ñu jël pour le cas de Hissène Habré Bart dinaa def de telle sorte que ñu dem seeti Hissène Habré parce que li ñuy wax ni aussi dafa baax yenn journalistes yi boo demee ba tiim Hissène Habré tu vas voir que ni kii franchement parce que nag Bart nañu wax ne dégg mais mag nga làq 80 jëm kaw mais forcément tu traînes des maladies chroniques loolu moom c'est avéré donc et ban int tey Hissène Habré amul benn menace boo xam ne daf koy daf koy daf koy daf koy daf koy représenté Hissène Habré delluwaatul Tchad Hissène Habré boo xoolee defatul politique pratiquement mun naa ni li mu waroon def yëpp def na ko mais kooku ban intérêt tey la état bi Sénégal amati bañ surtout parce que li amoon solo mooy ñu condamné ko. procès bi am na. condamné nañ ko tëj nañ ko ñëpp d'accord nañ ko ni lii mooy peine bi lii mooy condamnation bi mais ngalawaay bu ñu demee ba gis ko il est pratiquement mourant feebar na mënatul def dara mais Barthélemy kooku nañ ko defal sax même bu ñu ko joxul grâce pour des raisons humanitaires nañ ko assigné à une résidence surveillée mooy lan jël ko yóbbu ko ci kër goo xam ne au moins dina am sax ay garde pénitentiaire bu ba ba tey. y' a pas de souci ñu jël ay garde pénitentiaire. est-ce que yaakaaroon ne fa mu nekk moo gën a wóor ay résidence surveillée. non bu fekkee ne da ko bëgg a moytul mbas mi. mënuñu ko mënuñu mënuñu parce que cest à kon da demul ba gis cellule bi da demul ba gis fi Hissène Habré nekk loolu cest résidence surveillée nag avec toutes les commodités mënul bokk également ak ci euh, prison boo xam ne nag foofu nga nekk encore une fois de plus lii nekkul une première nee naa la boo demee dans les grandes démocraties jurisprudence dafa dafa prouver que ni effectivement tey les personnes âgées ñi làq 70 75 jëm 80 bu ñu leen condamné devant la barre dañu leen di dispenser à ce que ñu tëdd ci kaso bi mun nañ leen mettre sous résidence surveillée wala ñu xool naka lañ leen defal parce que seen état de santé moo leen mayatul pour ku ñu des ci biir kaso bi loolu je pense que ni amul lenn loo xam tey war nañ ko mën a reprocher les organisations défense des droits de l'homme ma ne la gis nga mbir mi mhm. Alioune Tine bu demee ba jël engagement parce que Alioune aussi ku ko xam xam nga ni nit kuy caaxaan rado ñaas ku ci mel ni ñoom 55 ans organisation bu amee noonu solo ñooñu bu ñu demee tey ba jël mbir mi combat bi nangoo signé communiqué bi donc ça veut dire que ni état de santé bi c'est tellement à l'état dégradant waruñu nangu nag. am na amnistie moom bokku ci. bon amnistie. je sais pas Seydi Gassama bon je sais moo tax signé wuñ ko. Mhm. la charge je sais pas mais en tout cas. LSDH Ligue sénégalaise des droits. je les organisations yi nga xam ne. tey ngeen. man yi les li ma lay wax ni di tu comprendre ce que je veux dire. Mhm. organisation yi ko signé. grid produit du seen patron. organisation yi nga xam tey ñoo signé communiqué bi amuñu benn contre boo xam tey mën nañ ko rendre human rights watch hmm. nekk ñu sur pression kenn ce sont des organisations qui sont libres basées au Sénégal maintenant nag yeneen organisation yi yi nga xam ni signé wuñ ko peut-être ñoom am nañ leneen yeneen raison yoo xam ni signé wuñ ko dañ leen koy nangul mais organisation yi signé communiqué bi prêt à porter le plaidoyer c'est des organisations organisations qui sont tout à fait libres et qui sont conscients effectivement que Hissène Habré présentement est en danger et ça également mm-hmm. c'est très logique d'interpeller le président de la République État du Sénégal li def na ko jusque là on y' a pas de loolu la état du Sénégal waroon def te def na ko maintenant nag la responsabilité revient à l' état du Sénégal moom la ñu dénk Hissène Habré dañ ko ko dénk. alors bu ñu la dénkee nit nga gis que ni dafa feebar yow yaa war a njëkk jug pour nga faj ko. état du Sénégal dañ jël Hissène Habré prisonnier à dimension internationale wala sous régionale su ma ko mën a tuddee noonu ñu dénk ko état du Sénégal état du Sénégal nag moo war a veiller. ci état de santé du Hissène Habré bu gisee que ni. Ah, état bi kay mu ngi ciy fee. parce que nekk prison. si si non waxuma ni waxuma ni dañ ko seetaan mais dama ni am na mesure yu gën a yu gën a souple yu gën rassurant yoo xam te état du Sénégal war na jël ay responsabilités parce que lu ci mënti am après bu fi deewee tamit état du Sénégal la ñuy joxoñ donc état du Sénégal na jël ay responsabilités jël Hissène Habré mettre ko à une résidence surveillée bu ñu ko fajee ba gis que ni peut na war na mën a dellu mais bu leen neexee ko ci biir kaso bi loolu kay si simple ce qu'on demande c'est très simple. waaw mm-hmm. ah, baax na léegi nag ñuy xaar euh, décision bu mujj bi ñu wax ci leneen. Mm-hmm. Euh, mu di union des magistrats du Sénégal yow forum du justiciable nga euh, yow yaay président ba d'ailleurs changé na président léegi Ousmane Chimère Diouf mooy njiit la léegi loo xam ci moom. waaw d'abord damay commencer par di féliciter lu tout nouveau président de l'union des magistrats du Sénégal. Mm-hmm. muy usman Chimère Diouf bon miinu ko trop dégg naa ci moom seede yu rafet. muy commencer di ko ñaanal. que euh, yan bi nga xam ne jox nañ ko ko. Mhm. yàlla na nekk yéen bu woyof. et puis yi nga xam ne tey moom ci kanamam yàlla na ci am benn succès total. chantier yooyu ci lan la war a tàmbali nga yaakaar le président sortant également muy Souleymane Teliko. Mhm. moom aussi ñu koy jaajëfal ci liggéey bi nga xam ne jot na ko euh, entamé ci mbirum euh, union de magistrats pour man président bu bees bi chimère Ousmane Diouf xam la la war a njëkk a def. Mhm. mooy réforme yi nga xam ni Bart. dañ ko togg réforme yi nga xam tey le bureau sortant daf ko commencé woon ba mettre ko sur la table le nouveau bureau de l'union des magistrats doit se battre corps et pour que ñu mën a appliquer li nga xam tey moom mooy réforme yooyu parce que réforme yooyu dañ ko tënk ci ñaari mbir te loolu je pense que ni bis bu ñu ko appliqué Barthélemy dina indi benn soulagement bu bëree bëri bëri ci justice bi ça va participer à l'indépendance euh. non seulement parce que ça va participer à à la question de l'indépendance de la justice mais également li gën a am solo mooy le bon fonctionnement du service public de la justice xam nga ñun boobu ba léegi dañuy tënku rek ci l' indépendance de la justice. mais alors que l' indépendance de la justice ak le fonctionnement du service public de la justice c' deux choses différentes bu ñu wax le bon fonctionnement du service public de la justice mooy que ni tey la question des longues détentions Barthélémy tey prison yi boo la majeure partie des détenus ba tey kenn atteegu leen te loolu li ko waral mooy. parce que dañu am problème mu juge d'instruction yu yu yu doy tey Barthélemy boo demee dans les cabinets des juges d'instruction il travaille dans des conditions extrêmement difficiles extrêmement dures da ngay gis un juge d'instruction il a un prix de dossier am dossier yoo xam ni pa pratiquement ils sont tellement submergés. am na ay dossiers non parce que mais parce que parce que parce que ils sont ils tellement submergés moo tax ci réforme yooyu ñu ni nañu recruter ay jeunes magistrats Sénégal yàlla daf ñu dooleel daf ñu suturaal. Barthélemy mënoo génn dox 100 mètres te dajewoo un jeune maîtrisard en droit chaque année la faculté des sciences juridiques et politiques bu Dakar Barth dina la jox plus de 200 maîtrisards en droit sans compter UGB sans compter les centres universitaires également donc bu ñu état du Sénégal accepté recruter ay magistrats dinañ soulager la question des longues détentions mais également même baro bi boo xoolee baro bi nañ ko ubbi te foofu aussi également ma ciy profité pour féliciter Euh, le bâtonnier de l'ordre des avocats mmh. Pape pap Pape Leyti Ndiaye il est en train de faire un excellent travail pourquoi parce que bi mu ñëwee ba léegi au moins on a organisé le concours donc là également c'est à féliciter et à encourager gis nga bu ñu defee bu ñu tënkee réforme yooyu mhm. dinañ soulager wu lu bari ci justice bi beneen pàcc bi ñuy wax la question de l'indépendance de la justice xam nga l'indépendance de la justice processus la c'est une quête mmh. c'est-à-dire que amul benn système judiciaire tey mhm. boo xam ni nekk na système bu performant mhm. c'est-à-dire il faut mu am parfois. ay failles ñu xoolaat aussi le conseil supérieur de la magistrature. mais bu ñu fexe euh, exécutif non moom laa lay expliqué c'est-à-dire bu ñu commencé tey réformer ci parce que gis nga indépendance de mhm. man li ma gën a amal solo waxuma sax conseil supérieur de la magistrature mais xam nga bu ñu wax indépendance de la justice c'est par rapport à qui. par rapport ak magistrat du siège maanaam magistrat bi toog di àtte. Mhm. kooku parce que le procureur ok mun na mun na sax quoi mun ni kii dama bëgg ñu toppal ma ko kii dama bëgg ñu daan mais ñaata yoon nga gis procureur def benn réquisitoire ne kii damay demander à ce que nañ ko tëj 5 ans mu ñëw juge bi bàyyi ko donc tey bu ñu wax indépendance de la justice ñu koy nat nañ ko nat ci magistrat bi nga xam tey moom mooy rendre la décision de te magistrat boobu lenn mooy garantir indépendance am xam nga lan la dafa am lu ñuy wax le en droit le principe de l'inamovibilité maanaam magistrat bi li koy garantir liy garantir indépendance am mooy que ni moom mm-hmm. mënuloo ko sanctionner mënuloo ko affecter tant que laaj tant que joxu la consentement am tant que moom pour nga mën ko affecté maanaam jële ko dakaar yóbbu ko Kédougou wala nga yóbbu ko Tambacounda. donc sax tant que newul d'accord naa mënoo voilà mais léegi principe boobu nga xam dañ ko jox le magistrat du siège. Mhm. mais dañ koy contourner par lu ñuy wax euh, la nécessité de service maanaam tey. les magistrats yi bëri te yi nekk ci tribunaux yi. Mhm. kenn du ci titulaire mun naa ni quatre-vingt-dix-neuf pour cent yëpp ils ne sont pas des titulaires à leur poste dañ fa nekk dañuy assurer un intérim maintenant koo xam ne tey nekkul titulaire ci poste il assure un intérim mais kuy assurer intérim kooku Barth boo koy affecté doo ko laaj doo ko laaj doo en fait doo ko laaj consentement son avis donc man ma jàpp ni bu ñu loolu pour man réforme yooyu noonu te loolu du def lenn lu dul gën a arranger l'état du Sénégal parce que depuis pare gën a dooleel justice bi Sénégal aussi mais mais justice moom bari na ci lu ñu koy ŋàññi waaw léegi nag il faudrait que tey ñu nangu ñu accepter dem ci ay réformes parce que nee naa la amul parce que bu ñu wax réforme c'est pas parce que dañuy ŋàññi li fi nekk. Mhm. mais droit mooy évoluer Bart droit bi gis nga defaa nga gis benn loi. Mhm. ñu ne la cette loi elle est désuète. Mhm. wala loi bi il faut ñu indi ci ay càmbar. droit moo nekk loo xam ne du mathématique. droit nekk nekkul 1 plus 1 égale égale 2. droit nekkul 2 plus 2 égale 4 droit nekkul 3 plus 2 égale 5 droit dafay évoluer c'est-à-dire parfois day baax ñu toog ba benn moment ñu xoolaat texte yi ñu càmbar ko. pour mën a renforcer li nga xam tey moom mooy la question de l' indépendance de la justice et loolu bu ñu ko defee ça va être le bien de tout le monde dootul am kenn ku taxaw di ŋàññ li nga xam tey moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy justice bi donc man ma jàpp que ni le président de la république ay jamono dafa dafa mettroon benn euh, sur place benn comité pour moderniser la justice comité boobu amoon ci ay borom xam-xam yu ci nekk déjà comité de réflexion déjà le pro, le professeur l'éminent professeur Jacob. Mm le doyen euh, en fait qui était doyen au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques moo ko doon jiite am les acteurs de la société civile donc réforme yooyu je pense que ni euh, bu ñu ko appliquer. c'est-à-dire dinañ gën a li nga xam te moom mooy justice bi ba pare dinañ régler ay questions yoo xam ni mbirum casier judiciaire mbirum euh, ay longue détention donc dinañ mën a def de telle sorte que mbirum da ngay ñëw pour benn kayit tu passes toute une journée là-bas mais loolu il faudrait que ñu accepte aujourd'hui qu'on aille vers des réformes et quand je dis il xam nga longue détention yi en matière criminelle Bart en matière criminelle mhm. au Sénégal le juge d'instruction ki war a saytu tënkuñu ko ci benn délai loolu moo waral ngay gis en matière criminelle ñu téye nit pendant dix ans door ko àtte léeg-léeg ñu àtte ko sax ne ko yow ndekkee defoo dara ñu bàyyi ko mu dem alors que boo xoolee en France dañ ni le juge d'instruction en matière criminelle am nga ñaari at pour nga mën a instruire sa dossier ñaari at lañ la may gis nga bu weesoo ñaari at yi juge bi bu parewul nit ki dañ koy libérer mu dem parce que sinon bu ko téye rek la détention devient arbitraire mais Sénégal en matière criminelle juge d'instruction bi tënkuñu ko ci benn délai. il n'est enfermé dans aucun délai. donc xam nga yooyu aussi Bart nañu wax dëgg réew buy dox da ngay accepter nga ànd ak ni réew mi di doxee. Mhm. nga ni juge d'instruction bi léegi en matière criminelle may nañ la ñaari at nga boucler sa dossier bi. ñaari at yoobu boo ko mayee bu fekkee ne ñaari at yi mat na te terminé wu li nga xam tey mooy instruction bi. nit ki da nga ko war a libérer mu dem gis nga loolu bis bu ñu ko defee dinañ obliger les juges d'instruction mais bien entendu bu ñu yokkee li mu juge d'instruction yi. dina mun a permettre ci mbirum. Euh, ah, parce que aussi juge d'instruction boo ko fixé les délais ba bare bu ko jox. mais c'est ça une centaine une centaine ay dossiers day métti ci moom. mais en fait c'est ça c'est ça où la problème foofu nag le problème bi nekk mais temps yi dégg nga sax les organisations de défense des droits de l'homme ñu génn daan nii mais pourquoi li nga xam tey parce que des fois da ngay dégg mandat de dépôt yi xam nga ñii ni dañuy kaas kii war na dem war nañ ko jox mandat de dépôt waruñu ko jox mandat de dépôt mais léegi nee nañu indi li ñuy wax un juge des libertés et de la détention mu nekk un juge un magistrat un juge du siège parce que xam nga procureur man dama jàpp que ne sax procureur warul délivrer mandat de dépôt mhm. xam lu tax procureur c'est une partie au procès procès procureur dafa am foo xam ne foofu la féetee mhm. procureur il n'est boo demee procès procureur dafa am intérêt yu muy défendre donc procureur mënul nekk euh, une partie au procès ba pare nga ni procureur yow yaa am sañ-sañ pour limiter pour priver nit ki. détention te te atte guñ ko. donc moo tax ñu ni nañu indi un juge de la détention et des libertés donc juge boobu dafay nekk un juge qui est farul fenn. Mhm. nit ki bu ñëwee ñu am lu ñu koy tuumaal su boobaa euh, dañ naan euh, juge bi. Mhm. jéemal nga saytu. bu xool kii ndax war na dem waru dem donc je pense que ni daal Bart. réforme yooyu bis bu ñu ko appliqué dina am njëriñ ci justice dina am njëriñ ci justice bi te dina mm. inter dina euh, intéressé mm. euh, sénégalais sénégalais sénégalais yëpp. Ba ñu ngi lay gërëm. maa ngi lay gërëm di la sant di dernier un dernier mot may lancer un appel à l'endroit du président de la République. Mm. nañu saytu. Hissène Habré ñu féexal ko parce que son état de santé ne cesse de se dégrader. d'accord merci euh, Babacar Ba président du forum du justiciable mbokk yi jërë ngeen jëf. ñu ngi leen di gërëm ci kanam xibaar yi ak euh, Mamadou Mouhamed Ndiaye.